Ousmane Sonko Mimi Touré ak euh, Abdourahmane Diouf ak Bougane Gueye Dany la ñu wax ni daal boo sàggontul ki fi war a fale ñee ko nar a fal ndax it am nañu yaakaar ni ak ànd a ngi bëgg a xeeñ ci seen diggante ñii daal la ñu journal bi jox tey. waaw journal bi de di fàttaliwaat ni Bougane tey ci 16h itamit. Hmm. dina wax ak réew mi. Hmm. waaw. waaw bu dee si côté Bougane ginnaaw day wax 16h. ñu ngi koy diglu ba xam mu wax ba pare ndax ginnaaw li waxi journal la gis-gisam la. waaw waaye it euh, pour doon président pour ñu xoolaat ay affaire am. Sonko ay wala pour doon candidat. waaw pour doon candidat. Mm-hmm. def na recours. Mm-hmm. te Bougane mi mën naa def recours te affaire dara leeragul ginnaaw dara leeragul moom mënuñoo xam ñiy fale moom bu ñu mënuñoo xam kuy falu. waruñoo mën a xam kuy fale non buñ la saytoo kay ni la saytoo nañ affaire yi. non waaye daf def nañ recours àgguñ conséquence nañ fa fañ war a xoolee candidat yi. ok xamaguñ ñiy falu mënuñoo xam ñiy fale man daal loolu laa si mën a wax. ñii lan xamaguñ ñiy falu mënuñoo xam ñiy fale bala ñoo xam ñiy fale daal. non nit mën naa bañ a nekk candidat ba pare fal ki fi ne. waaw mais nañ xaar ba xam ñiy falu. mooy li saa doon wax naan kii day football wala mu nekk ci banc de touche. waaw moo tax man doon ku ma àndal da ngay gañe. mais kooka mën naa am mu falu sax. waaw moom moom ñii nii ñii ñii mën nañu am kenn doon si président. ñii waaw ñii mu tànn ñi ñooy fale mën na kenn doon si président kon nag il faut mu xaar tuuti rek moom journal bi nañu may tuuti rek hmm. ñu tànn ba pare ba mu leer ne lu dem ñu doog a xool ba xam ñi buñ nekk boobaa dañ naan coalition bii bu ñu àndee mën nañoo am doole coalition bi bu ñu àndee mën nañoo am doole su boobaa loolu rek la ñu war a wax hmm. alaaji hmm? noo gis euh, euh, affiche bi ñu journal bi defal tey muy ñett wala ñeent ñoo xam daal jàpp nañu ay radical lañu ci wàllum opposition bi te it mën naa am kii falu ëllëg bu ñu bu ñu falul ñoo koy fal waaw xam nga affaire yi moom ñoom ñooñ ñëpp ñoom ñett ñi ñi ñu teg noonu ñeent non dama seppi Ousmane Sonko parce que bokkuma la boole boolewuma leen ak ñoom même kii quoi ñooñu ñoom ñett ñooñu alaaji ñeent lañ waaw donc may may ma yeggale waaw ñeent lañ ana Abdourahmane Diouf Modou ñoom ñoom ñett ñooñu Abdourahmane Diouf ci la bokk waaw ah, ci Abdourahmane Diouf la ñoom ñëpp laa hmm. nañu def ni patriote yi def rek ñoom ñëpp nañ toog déglu ndigal ñoom buñ paree topp ca bu boobaa ñoom ñi liñ bëgg dinañ ko am. comprendre hmm? maanaam xam nga ni ñu waxee dafa mel ni ku ci nekk dañuy toog waxtaan ku ci nekk di joxe ay choix ak ay liiw ak laak lële nañ toog déglu ndigal. ñan déglu ñoom ñii ñëpp ñoom ñett ñi. waaw parce que ku ci def leneen it mën ngaa wayee di. ndigalu kan. góor ga ca Cap Manuel. non non alaaji xam nga nag alaaji yow des fois nag da ngay yow jàdd ci mbooy gi di daw ay di daw xel nag ñii ku ci nekk tey leader nga ci sa parti kii dafa am ab coalition kii am lii kii am parti kii am parti luy seen doole politique nombre la de. waaw moom laa la wax léegi ñoom. politique xam nga lan la ñuy jiitee. mais ñoom bokkuñu Pastef. dañoo am seen part mais mais mais politique question kii la. doole ji xam nga lan la. mbooloo nombre la politique du leneen de. ñii dañ leen a kale c'est parce que dañ ne leen amu leen doole. lu du dëkk kee nag dañ ne ko sa doolee ëpp ba mbir mi mënoo bokk ak booy yi hmm. maanaam loolu ak maanaam dafa mel ni Sonko dañ ko disqualifié dañ ne ko yow cent kilo nga doo dajee poids plume yii yow grand combat bi nga war a bëre hmm. ñii doo doo seen moroom ñii nag ñoom dañ ne leen gars yi duñ seen moroom kon donc ñooñu buñ ñëwee fekk kee hmm. waruñoo waxee wax joo xam ne day nuru ni maanaam ku nekk dafay ñëw wax ni maanaam ñoom dañoo war a ñëw topp ci rang yi nangu. non non alaaj non loolu mënul nekk nag loolu c'est impossible. waaw ah, non mais nangu lu am solo la. man nañoo nangu. am na ñoo xam ne ci àddina mën nañoo nangu. li ñu ñàkk xam nga moo leen ko ñàkkal. mais ñoom ay chef de la mais xam nga ay am na ñoo xam ne ci àddina. waaw li ñu am xam nga la moo leen ko may nangu gis nga Habib si position bi mu nekk nii tax tey moom moom hmm. Habib Sy hmm. nangoo ko may bu jëloon jiital boppam ne ba muy politique booy bi politique wut defut nii defut daa comme nekk naa directeur cabinet Habib bu génnee fu muy jaar maanaam loolu bu ko defoon laa di tafaane woon ne nooy bëre xam nga loolu mënoon na ko def laa fu muy jaar xam nga loolu mënoon na ko def waaw fan lay jaar waaw da nga may déglu rek xam nga bu ko defoon tey du nekk ci position bii mu ne waaw maanaam mais dafa nangu nangu moo ko teg ci position bi mu nekk nii tey comprendre nga. ba tax léegi ñëpp di dal ci kawam loolu lépp li ko ko may mooy nangu gis nga tey man damay wax ne gis nga Bougane ku am man pour man Bougane pour man dafa def ay faux pas quoi mais na yàlla son ci jamono ji ñu toll nii sax. bu ñu arrière raatoon politique bu mu politique. mu amoon neneen nu mu politique woon. Bougane sax mënoon na nekk beneen position boo xam ne mooy gën a confortable que position bi mu nekk nii. Mm. parce que Bougane jàmbaar la mhm. jóge na ci journaliste jaar na ci góor góorgóorlu ñafe na ba tey mu taxawal ay mbir loolu jàmbaar a koy def am na ay gis-gis am na ay idée comprend nga mhm. mais man pour man bon loolu mhm. nga xamante ni moom maanaam dafa dafa teel a yëg fi mu yegg te ne da ko teel dafa dafa am dafa am leneen xam nga dafa am xam nga tey mën ngay def yooyu yëpp jaar foofu yëpp benn waaye ne fël fële. jaar fi nga jaar yëpp mais na ci kaw mais pareen saa yi il faut accepter xam nga keroog maa ngi gis ba Assane ak ma partagé booyof di ko wax ne ko buggaan xaw ma kàll nañ ko waaye nag mën ngaa ñëw kii waaye nag bu fex couleur bul wax kii wak bul ñëw naan seen kii bi lii wak affaire yi quoi comprendre nga. di di di ko di ko di ko di ko di ko waale di ko tooñ noonu. Mm-hmm. mais loolu lenn la Pape Djibril Fall. Mm. yow Pape Djibril gisoon nga ni am na avenir. bu baax a baax lool lool bu baax a baax. lool comprendre nga. Pape après Sonko mënoon mënoon mënoon naa nekk sax. waaw mais pour man dafa def faux pas. jàll na Pape Djibril ma jàll waxuma jàll na jàll na boobu yooyu mbirum jàll na xam nga tey jii ma wax la leen li buggaan def fii Pape Djibril mënu koo def fii. wallaahi mënu ko. Mm. li buggaan def fii ci place de l'Obélisque. Pape Djibril mënu koo def ci place de l'Obélisque. te Pape mënoon naa jàll na. boo doon jël candidat yii fi jaar nga ne leen def leen ku defut li buggaan def doo jàll wóor na yàlla ñuy ñëpp genn wàll yëpp kenn du jàll si kenn du fi jàll am na courage li def kenn mënu ko fay def waaw dëgg la loolu dañ ko koy nangul moom rek lañ gisagoon it ci candidat voilà moom moo ñii dama ne hmm. bu weesoo ñi ko fi man hmm. bu weesoo Pastef waaw euh, Pastef moom mayeguñ leen fu ñu. yaa ngi dégg pour nañ ni mën na mën nañu def. bu weesoo Pastef. yaa ngi dégg dëggantaan. bu weesu parti au pouvoir parce que mën nañ mobiliser mën nañ def seen i mhm. bu weesoo ñooñ li fi buggaan def fii ñii ñëpp kenn mënu ko fee def. Mhm. nañ ko jéem. waaw ah, non defuñu ko woon. duñ ko def. ñoom ña nga jëm foofa sax waa parte pouvoir. ah fañ aaye woon waa Pastef lañ jëm noonu Amadou Ba. <laughs> Euh, waaw affaire Modou Lo lañ wax xaw boobu la def xaw ma lan. non Sénégal àggul foofu ni amul kay def. waaw ah, nangul nañ ko def naa loolu la booy wax de booy yi koy partage. dañ see yëpp rek. c'est man sooy bu man am na loo xam ni bugguma bugguma parensaay hmm. am na ñu am na ñu bari ñoo xamante ni bii peut-être que seen entourage mën nañ leen a. wax hmm. mën nañ leen a kii comprendre ba am neneen noo xam ne noonu la mais pour man ñooñu. Hmm. Euh, mënoon nañu am kii yu gën a loolu ko parce que tamit wax tëgg fa yàlla am na ci nit ñoo xamante ni bi mhm. dafa am fu leen nit ñi tegoon quoi. comprendre ñuy daj lu ne. mais par yenn saa yi il faut par saa yi nga daal di nangu leen. d'accord pour mën a am lu gën a rëy ëllëg. macha allah. Hmm. am na solo jërëjëf euh, mi ngi noonu am na solo euh, waaw noonu mu ne waaw mu ne saa waxal saa ak pur. Hmm? benn pire de mooy cas yi nee na saa. waaw non pire waaw pire wax na dëgg. waaw waaw c'est vrai waaw ah, pire mën na mën waaw pire mën na ko. pire kat kenn leen la li non non non pire non non c'est que mën na ko waaw li mu wax dëgg la. pire euh, pire bu loolu la pire kat ñoom ñoom dañ koo jéemantuut non mën nañ ko. pire kañ def na def na ko def na def na sax def na. dañoo dañoo jéem a jéem a feesal mais mais ñeneen laa man ma ko calculé ko sax pire. pire kat moom fu mu dem feesal ko. waaw pire moom mën na sans de la fay daje daa xaj fenn. waaw li mu wax dëgg la moom pire mën na ko. <laughs> pire kay nag bu wax dëgg yàlla moom moom nag nag xajul ci kii bi. ay ca Al Assane. looy rek. <laughs> ah mais Assane li li sooy bu wax dëgg la. bilaay wallaahi pire mën na ko. non eh. <laughs> pire moom ah, loolu du kenn du werdi. pire da nga fi du nekk naa mën na ko mënu ko. waaw ah, eh. xam nga nekkuñu ci pire mën na ko wala mënu ko benn bayaal booy jël ci Sénégal. Hmm. ñu naan pire mën na koo feesal gis nga yow mi bu doon yow lañ wax ne Assane Mesere lañ fay kii mais te ko yëg man nga xam naa jékki xam nga biir ah. alaaji duñ def mais da waaw loolu moo lay wax ne organisé nañ te day fees dell te Ah, loolu kay man damaa xam nu ñuy waxante seen i mbir noonu ba affaire yi. ah dañ ko xam nga pur ma wax la leen xam nga pur dafa yàgg tamit seen daayira bi dafa yàgg ci ñu leen di xoñañal ak yooyu maanaam ci loolu la ñu amee pexe. Mm-hmm. pour di xool nu ñuy def pour seen daayira di continuer di fonctionner. maanaam ñoo leen tàggat gars yi ñoo leen tàggat ci nii ñuy doxee. pur waaw. parce que dafa am ay ndëgg sërëx yu ñu leen doon tegal ak ay kii ay jamono maanaam boobu du parce kii quoi maanaam daayira bi Moustarchidine daayira Moustarchidine amoon nañu ay jafe ñuy am ay réunion clandestine nga yoo xamante ni bi dañuy daje di waxtaan di def li nga xamante ni moom la ñuy war a maanaam fa lañ jëlee habitude doxalin hmm. wii ñuy doxee seeni xibaar di jàll sans pour autant que ñu jaarale ko ci rajo wala ñu jaarale ko ci tele da ngay war nañoo def fenn da bés sàngam ñépp yëg ko parce que maîtriser nañ li ñuy joxe. communication bi. bu ko defee bés ba day jot rek nga gis ko mu fees del da ngay jékki-jékki rek gis fenn ñu. nga naan lii nu mu demee nii. fekk ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo yor mbir yi xam nañ ni mu demee nii. wallaay wallaay. waaw non ñooñu moom ak Pastef fii defe naa bi saa limee keroog daan ni ki laan leen ñoom ak Pastef. Mhm. ñoom amuñu maanaam amuñu ku ñuy votel di votel keneen. ñoom seeni seeni seen i. man moo tax parrainage u Pastef parrainage u PUR. moom ñooñu moom ñooñu moom ñooñu moom buñ ne dubloon xëy na ci ay raison rek mais ñooñu duñ parrainé di na kenn kon ba suba ak jàmm baay waaw xanaa di siyaare sama benn mbokk bu ñu wax askan nekk Touba Madiana euh, dafaa defoon lël bu mag. dafaa defoon ab lël maam woo mbokk yi ñu indi seeni i gone ñu xarafal leen. Ah, waaw muy lu am solo nag ñu ngi koy ñaanal bu baax at mu jot mu koy def yàlla na ko gën a man bitim réew la nekk. si muudu politicien la wala. non la ab muudu la. Ah, mais saa rek ñu wax ñu xarafal leen. waaw. <laughs> golo yee duñ ko def sëriñ bi leen di jox. <laughs> nga sëriñ bi xarafal lay indi woon. <laughs> ñu ngi koy ñaanal bu baax a ba mu demee élection yi dañ mm. gaa yi dañ ko yenn ba ci kaw dóor ci suuf. Mm. suñu fële. Mm. Euh, maire bi ñëwoon di campagne dajale gone yi xarafal leen. ah waaw waaw waaw wax nga dëgg waaw. xarafal koñ ba yëpp dañu def ko genre campagne. Ah, daa du ma mit la ko waaji du ma <laughs> mais nag waaji bu doon toon ngelaw li du ko moom waaw ngelaw laa fa jaar ko moom wax dëgg yàlla liggéey na ko ngelaw laa fa jaar waaw ngelaw laa ko yóbbaale rek ba suba ak jàmm waaw allah ci kàttanu borom